jëf mbokki internet allo Sénégal tey Cheikh Abdoulaye Thiam la leen indil la marabu Ousmane Sonko borom kurus gi mbokk yi ki ngeen jàkkaar lool bokk na wala sax dama naan moom lañ njëkk a woowee la marabu Ousmane Sonko. boobu yàgg na Ousmane Sonko melagul nii te bi muy génn di ñaanal Ousmane Sonko di wax ci avenir Ousmane Sonko boobu yaakaar naa ñu bari xamaguñu ko coow li bëri mu absenté lu ko waraloon. tey en exclusivité ngeen koy amee fii ci Allô Sénégal borom kurus gi ñu jàkkaarloo du Cheikh Abdoulaye Thiam lan moo ko téewoon boobu ba léegi mu gëjoon a génn waxtaan ak soppe yi waxtaan ak tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy am di jàmm yi tey dinañ waxtaan ak moom ci xam-xam bi nga xamante ni suñu borom may na ko ñu bëri nag di xaar loolu ndax bu waxtaanee ci xam-xam rek réew mi doyal te xam ne xam-xam dëgg da koo yor nag te téye ko nañ waxtaan ak moom tamit ci actualité lu ci mel ni 200 millions yi nga xamante ni Mame Mbaye Niang nee na daf koy jox ñii di ñooñu daara yi ah Cheikh Abdoulahi Thiam borom kurus gi de am na neneen nu mu ko gisee te gis na tamit ndax 200 millions yooyu sax dina ci dina ci jot moom ki nga xamante moom mooy Mame Mbaye Niang sëriñ bi dina ci def ay révélation yu yéeme yéeme yéeme tey ndax cheikh bi ba mu gëjee génn boobu ba léegi dafa làqatu woon nag maa leen koy wax tey waaye nag Cheikh ci am nañu waxtaan ak moom ci xat-xatu réew mi gis nañ réew mi tension yi yi am fële ca ca ca Cambérène ay yëngu-yëngal amoon na ca feneen ak feneen réew mi ñi gaa yaa ngi yëngal ba kii di Dof Ndey xarit la ci Amadou Sall génn di menacer réew mi di menacer ku nekk ba commencé jël ay armes di jamaate te boobu ba léegi nag gisuñ convocation ñëw ci kawam ba gisuñ sax ñu arrêté ko te bu doon keneen it xëy na dina demee neneen waaye Cheikh Abdoulaye Thiam loolu lépp te dina ci indil ay leeral tey révélation yi tey 100 pour cent sax laay wax Cheikh Abdoulaye Thiam dama lay bàyyi nga nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy ñoo lay seetaan bismillah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim qaalu subhanaka laa ilma lana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqaw qawli mbokk Allô Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen tatagal ci kër gi di nuyu murit tiijaan xaadir laayeen góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ba ñi ci jàngu bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen dalal ci kër gi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf cheikh bi suñu sëriñ bi waaye waxtaan bi balaa ñu koo tàmbali faaw ñu ñëw ci sa absence bi ndax dañ laa namoon lu yàgg ñu bari di la laajte mënuñoo am sa jëmm ji. lan moo waraloon sëñ bi absence bi ndax bi naan la marawul Ousmane Sonko boobu lii lépp xewul woon coow li bëri kenn gisatu la. ñu ngi sant yàlla ci loolu. Euh, Lamine damay faral di wax ne. Mhm. jaam yàlla yi nekkul ne waxtu ne dañu war a feeñ. ndax boo génnee ci télé bi di wax ba àdduna bi yëpp jublu la di la ñaanloo yàlla kon nag waruloo bés bu nekk nga mën di feeñ. loolu dafay firi ne. Mhm. yow jaam yàlla bi. xanaa ne dafa fekk ne yitte jaam yàlla yi daf la des a yitteel. nit ñi suñu bàyyee seen lépp jël seen alal teg ci sa loxo. war nga wàññi say nelaw war nga wàññi sa génn yu bëri ndax tëju bi ñun ci jàng lañ nekk ak ci jàngale ak ci jaamu yàlla ndax boo ñu gisul ñu ngi ci riyaada ñu ngi ci xalwa ñu ci leneen ak leneen mhm. kon nag jaamu yàlla yi ñoo ñu liggéeyloo kon ngir ñu génn mhm. ala foog nag ñu pare ci seeni liggéey ndax pare woon ci liggéeyu jaamu yàlla yi mhm. mënut lu xew rek ñu wax ci wala lu xew ñu dugg ci day fekk ne ñun yitte yi bëriwutoon euh, dama lay wax ne Lamine yenn wax yu bëri jot la de ah. sëriñ du am jot ndeysaan wallaahi foo ko bëgg a gis gis ko mhm. waxtu boo ko bëggee dégg dégg ko déedéet mhm. ñun jot boobu amuñ ko mhm. moo tax coow li ci dëkk bi riir na am nañ ci suñu position waaye ñu ngi tëju di ci def ñaan yàlla tëju junjoon nga ñu ko Ah, loolu am na. waaw ndax réew mi dafa am fu mu toll. Mhm. dañu toll ci réew moo xam ne dafa am buur boo xam ne. Mhm. wala mbër moo xam ne dafa bëgg a bëre. taxaw ci làmb ji ñu yëkkat ci loxoom jox ko ndam ne ko demal. mbër moomu loolu la bëgg. ah parce que nag dañuy wax ne démocratie. Mhm. xam maa ni démocratie tax na moom mu jot ci réew mi. kon nag li tax mu jot ci réew mi. Uh-huh. bu mu ko xañ keneen. <laughs> Sénégalais yi ñooy àtte. te Sénégalais yëpp ñu ngi bàyyi seen bët di xool. ay boromi xel lañ. kon nag junj doy na. junj boroom xel yu sell yi. foofu laa jëm nag junj doy na boroom xel waxtaan bi fa lañ koy yeggale. fa lañ koy fa lañ jëmi ji ndax namoon nañ la namm goo xamante ni suñu waxtaan ak yow mën na jël ay heures yi heures yi ndax dañuy wax Cheikh Abdoulaye Thiam bu ñu ko waxee rek ñëpp ne borom kurus gi ñi borom kurus gi sa diggante kurus ñun xam nañ ci dara gis nañ aajo yu ngi ciy faj waaye dañoo bëggoon a xam ndax aajo yëpp tey ci kurus rek nga koy fajee. ñu sant yàlla ci loolu waaw alquranul karim bi bi mu wàccee booba xaatim xewul dara xewul lu dul yàlla wàccee ko ngir ñu jàng ko jëriñoo ko waaye ci biir alquranul karim tamit def nañu nunazilul qur'ana maa wa shifa wa rahmatun lil muminin maanaam alquranul karim wàcc na ngir doon sifaawu maanaam di doon saafara ak njëriñ di yërmande ñeel bépp jullit mm-hmm. kon nag bépp turu yàlla buñ jàpp na nga xam ne ci alxuraanu karim lañ ko tëggee jël suñu kurus te dama lay wax ne gis nga kurus boo ko toppee jàpp tur yàlla di ko liggéey da ngay gis ne tur boobu waaw dafa am rawxaan bépp xaraf boo gis ci alxuraan dafa am rawaan bu koy garanti lépp loo gis rek dafa am rawaan bu koy garanti léegi nag soo jàppee tur yàlla di zikkër bàyyiwuloo doon borom kurus yàlla dalay xamal lépp xanaa xamoon nit dina ñëw faj euh, wax la aajo nga tëju jàpp kurus tëdd gédd ñu ne la defal nangam ak nangam ak nangam aajo jaami yàlla boobu fajoo. allahu akbar nag ci yoonu riyaada lay nekk. da ngay tëju di sikkar rek. nga xam ba borom bi am lu mu fëgg sa dënn wan la ko. Mhm. ne la diw sàngam mii lii mooy yitteem defal nangam ak nangam moo tax dina am ñoo xam ne Cheikh Abdoulaye du leen ñaanal ci wàllu kurus. Mhm. day tëdd rek yàlla wan ko lam war a def ci jaam bi bu ko defee mu jël ko. jox la ko nga jëfandikoo ko mu mel ni balu fetal kurus nag képp koo gis mu ñeme ko xamal la sëriñ dëgg la mhm. dafa bari sëriñ yoo xam ne ñu ci dëkk bi ay sëriñu kamatra lañ dañuy recopier waaw recopier jox la waaye sëriñu asraar dëgg mooy jaam bi nga xam ne dafay xam xel mu nujoom am xam-xam ci wàllu bidiw am xam-xam xel mu sajara ci wàllu garab mhm. am xam-xam ci lu bari moo tax sëriñ bi jóg ne dafay def sëriñu tariyaax dafa war yitte tey tamit teg ci di yàq ay nelawam lamin damay faral di wax ne. waaw doomu aadama wóolu la bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi ñëpp bàyyi sax yàlla ji waroon a ñaan ñëw ba ci yow ne damaa bëgg nga ñaanal ma yàlla. kooku am nga contrat bu rëy. Mhm. sa diggante ak moom. Mhm. warul tëdd di nelaw yow mim ñaanloo yàlla nga tëdd di nelaw nga bëgg yeew ngir faj aajo yi. moo tax ñun dañu nàmpatal suñ bopp ci kurus. suñu nelaw bariwul ndax kurus. parce que kurus damay wax ne mooy balu fetal bi gën a gaaw. bombe atomique ya ngay dégg ca Russie. ak ca dëkk ya muy tàkk yëpp. kurus moom ngay toog fii dóor li ngay dóor ci per yàlla faj aajo ku nekk ba biti réew. <laughs> te doo ko jox mu sangu. doo ko jox mu takk mën nga toog def lim boo def ci kurus. Mhm. ñaanal yàlla nit ki bépp aajoom fajoo kon nag du hasard uh-huh. ñu ne ñu kurus ñun daal kurus suñ dund la ndeysaan duñ ko bàyyi <laughs> temps bi ñuy def ci kurus defuñ ko ci lenn bu guddi jotee dagg nañ mànding yëpp uh-huh. ñu ngi ci kurus gi ñu ngi ci kurus gi ba julli fajar uh-huh. doora moom suñu bopp tëddaat daanaka moo tax léeg-léeg nit ñi di ma woo booru 10 heures ak 9 heures. Mhm. duñ ma mun a jot ndaxte waxtu boobu dafa may fekk ci lal. Mhm. may récupérer daanaka fu 11 heures jotee midi. ñu yeewu mhm. jublu ci aajo jaam yàlla yi. allahu kurus xam naa ni euh, buñ ko buñ ko buñ ko toppee rek dina wax ci kurus loo xamante ni ñu bëri nañ dar seen gémmiñ ndax euh, ni ngeen koy gisee yim ci yor bari na bari na yoo xamante ni te fonk na kurus macha allah waaye. am na loo xamante ni réew mi yëpp dañ la koy tappal tampon la sax mën naa ko wax Sénégal Gambie Afrique sax laay wax wala sax ma ni Europe dañ ni ubbeeku bu gaaw yaa ko yor ñu ngi la koy jëwee nag sëñ bi. ñu ngi sant yàlla ci loolu. Lamine damay faral di wax ne doomu aadama soo ko bëggee ubbi. waaw da ngay xam bidiwam nit da ngay xam lan mooy bidiwam. doomu aadama bi da ngay xam tolluwaayam su ñëwee ci yow. di la diis aajo da ngay xam tolluwaayam fan la toll. ndax nit ki li koy gàllankoor ngir mu ubbeeku dafa bëri. est-ce que xam nga ne rab day tëj buntu doomu aadama ba du mën a tijjeeku. rab mën na tëj sa buntu rab. ba foo fëgg. bunt boobu noonu du tijjeeku ba doomu aadama su la ne Lamine kaay ma may la nàngam boo yeggee dangay fekk loolu jóge fa wala nga fekk waajooju am gàllankoor oh. ba du la mën a jox loolu rab dafa koy def doomu aadama mun na dem ba cat ak làmmiñ jàpp ko gàllankoor ko lu bari ba ci wàllu yaramu doomu aadama sax di nga gis nit ku tëwat fekk cat ak làmmeñ moo ko jàpp damay faral di wax ne bari na gàtt wala jur goo gis mu dugg ci cin làmmeñ ak bët ñoo ko fa dugal kon nag doomu aadama bi yow góorgóorlul ba yow mucc ci làmmeñ ak cat mucc ci wàllu rab waaye it mucc ci wàllu liggéey liggéey nag damay faral di wax ne mhm. sëriñ si ko mën bariwul dinga gis doomu aadama buy daagu foog ne dañ ko liggéey fekk cat moo ko jàpp walla wàllu rab liggéey yombul dinga gis téeméeri nit buñ ñëwee ci yow di seetlu yàlla xam ne ne fukki nit rek ngay gis liggéey nekk ci seen jëmm ñi ci ëpp cat moo leen gàllankoor ak làmmeñ ak wàllu rab problème yi ngay gis yëpp jàppal ne cat ak làmmeñ moo gàllankoor nit ki gannaaw bi nga xamee loolu nag ñun mbiru ubbeeku dañ ci am yoon yu wér a wér yàlla may ñu ko ñu ciy ubbi doomu aadama ubbi nit ci ubbeeku gu gaaw a gaaw a gaaw gaaw a gaaw uh-huh. yàlla may nañu ko waaye nag loolu ci wàllu rawxaan la wax naa ne la képp ku jàpp tur yàlla yàlla dana la boole ak rawxaan boo xam ne lépp loo ko liggéeyloo mu liggéey ko lépp loo ko sant mu def ko parce que mbindeef lañ yoo xam ne ngir nga liggéeyloo leen day fekk yow nga gën leen a sell day fekk nga gën leen a ñeme tur yàlla ba ngay liggéey boo ko ñemee nag da ngay gis ne tur boobu dafay dem ba rawxaanu tur bi jug nekk di sa taalibe di la liggéeyal a faj aajoom ba biti réew. mu déplacé wu ba foofu faj aajo jooju noonu nga am ci résultat yu gaaw moo tax mbiru ubbeeku bu kenn wax ne amut képp kuñ jëflanteel di nga ubbeeku ubbeeku ku gaaw. Mhm. ci wàllu rawaxaan. te damay wax ne. dafa bëri yu ñuy jëfandikoo. di ko jox rawaxaan yi ñu koy utiliser yàlla dinañu ci may ndam est-ce que xam nga ne lamin damay utiliser ay cuuraay yuy jar ay millions. est-ce xam nga ne damay utiliser parfum yuy jar ay millions. la waaye loolu nag ci wàllu wërsëg lay dox wàllu risque ku yàlla may ba mën koo jënd ñu jaar ak yow foo xam ne du yàgg dara ñëpp dégg sa tur ci wàllu alal. allahu yàlla may nañu ko may yàlla yi jeexut. Mm-hmm. te weddi gis bokk ci. am na nag ñu koy jaar ci yoru shayatin di mm. dugg ci mbiru faramaçonnerie rek lu ne. waaw dëpp ci alquranul karim. Mm-hmm. ma farat naa fil kitaabi. min shay'in dañ dëpp ci alquranul karim fa la ñuy jaar ci turu yàlla taal doomu aadama bi ba yëkkatiku am ubbeeku am ba beneen yoon ci wàllu ubbeeku ñu koy liggéey ci garabu wës wësoor da ngay ñëw ci garab gu njëkk gi jël fa benn reen ba ca topp ñaar ñetteel ba ñett ñeenteel ba ñeent juróomeel ba juróom juróom benneel ba juróom benn juróom ñaareel ba juróom ñaar nga boole ko mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett tolloog arafu abajada yee sunguf boobu am na luñ ci liggéey. bu ñu ko mm-hmm. defee sunguf ba pare. Mm-hmm. dañ koy boole ak sóoratu waaxia damay faral di wax ne sóoratu waaxia mm-hmm. mooy saar boo xam ne doomu aadama bu koy faral di jàng sooy tëdd yàlla daf lay wërsëgal doo ñàkk mukk te boo fi jógee dinañ la miraas. alal yu bari kon nag sóoratu waaxia mooy ministre des finance kon nag suñ ko jëlee boole ko sungufu wës usóor boobu jàmm bi su ko sangoo da ngay gis ne dafay am yëkkati ko. bunt bu mu fëgg. waaw ah. dafay tijjee ko. man gëwuma nga sangu mu mat ñaari semaine gisoo dara man xaw ma loolu. Uh, uh. man aw ma ngànt ci loolu. parce que lu ñu tarbiyee la lu ñu xam la. Ah, mbiru ubbi wërsëg daal gannaaw bi nga xamee li gàllankoor doomu bi ba pare. Mm-hmm. jàmb xeebu bii. Mm. képp ku mu bëgg a tijji. Mm. di nga tijjee ko ci kàttanu yàlla. ubbeeku baaxam ubbeeku daal sant nañ ci yàlla bu baax a baax. ma allah moo tax réew mi ne ubbeeku kat yow yaa ñu ci doy. li tax ñu tuddee la ambassadeur ci wàllum nopp mënuma fee ñëw nag ba dem nga doon ambassadeur wàllu nopp toog fii te duma la wax te duma wax ak yow ci boole. waaw boole ak bari sëriñ si wax mën nañ ko mënuñ ko man li tax ma def constat bi mooy. Uh-huh. da ngay gis ku ñëw di ñaan lu ci yow. di la laaj ndax boole ñaari doomu aadama am na. Mm-hmm. ne la parce que ñun dañoo ñaanloo ñaanloo ñaanloo ba sonn gisuñ ci benn résultat seen bopp nag ambassadeur bi toog fii ngay dem ci keneen waaye nag jàmm bi jërëjëf jàmm bi ngir nga jàpp ko ala foog nga xam yan waxtu lay tëdd ci lal di ko nelaw hmm? te loolu dara du la ko xamal lu dul nga xam taabiyaan doomu aadama bi xam bi diwam parce que nit ki tànk jàppal ne nit ki tànk mu ngi dox kenn mënu koo liggéey ba jàpp ko bu yeewoo bu yeewoo doomu adama yaa ngi ko mën a jàpp ci waxtu wi mu tëdd di nelaw. te li lay xamal ne mu ngi nelawam nelaw loolu ci bidiwam ko koy xamee dafa am yoon wu ñuy jaar ci wàllu ramlu ci mhm. wàllu seet mhm. ba xam doomu aadama bi yan jamono lay tëdd ci lal waxtu woowu nag doomu aadama bi day fekk léppam dal waaw lépp yëpp dana ko tekki bu ko defee ñun bal ba ñuy sànni ci waxtu yooyu lañ koy sànni hmm? ndax am na noob boo xam dañ koy def ci da ngay dem ba ci àll nga gis ñaari garab yoo xam ne dañuy dem ba ràbbalante garab yooyu bu ci ne dana am luñ ci jël mm-hmm. boole ko waaye nag dafa am waxtu yuñ koy liggéey waxtu wi jaam bi tëddee ci lal bay nelaw mm-hmm. waxtu woowu ñun ci lañuy ñuy dagg suñu yitte liggéey wàllu noob moo tax mbiru noob luñ ci sànni du ci am na ci loo xam ne dañ koy def ci lem jox ko jigéen mu def ko ci kanamam mm-hmm. soo ko jëfandikoo sa borom kër dootul xam beneen jigéen ci kaw suuf ku dul yow tant que yaa ngi ci suuf si di dund uh-huh. yow rek lay jàpp ne yow yaa jigéen su ko góor defee jabaram day jàpp ne moom rek mooy góor ci kaw suuf allah moo tax doomu aadama bi lépp lu la yàlla jox nga bëgg ko mu yitteel la xar sax bu ñu la ko joxee nga uh-huh. bugg ko jëriñoo di ko yeew kon nag boo amee soxna wala borom kër nga bañ mu rëcc la dugg ci yeneen loxo balaa ñu lay dëddale ak moom am na yoon wooy jaar wax naa la ko uh-huh. mooy yoonu boole bunt yi nag bëri na. Oh, am na ci oh. loo xam ne bi ñuy xale ba léegi. Uh-huh. ñu ngi koy jëfandikoo ci wàllu boole. di ko liggéey di ko boole ak meew bay def ko ci butéel nga suul ko su meew mi wayee borom daf lay topp abadan jublu say mbir. Mm-hmm. maanaam noob daal damay wax ne buntu yi bari na. bëri na gëstu nañ ci sonn nañ ci lool dem nañ ba ci Mali ba jàng ci wàllu noob. Mm-hmm. ci connaissance noire am na noob boo xam ne tey. Mm-hmm. soo ko jëlee nga def ko ci géej gi. waaw def ci bër nga gas ba mu nga suul ko fuy tooy. waaw da ngay gis ne boromam daf lay topp comme ni ñuy toppee xaj xaj di toppee boromam. <laughs> ndax di fi mu nekk bërëb buy tooy la. waaw ni sa xol di nekkee ci ndox. noonu la sa xel di nekkee ci moom ci jamono bu ne. Eh. noob daal liñ ci xam bari na. Mm-hmm. waaye nag sëriñ si ko man bariwut man daal jaaxle naa ci loolu eh. damay faral di wax ne daal mm-hmm. képp kuñ ko santati mënuloo ko mm-hmm. ñëwal nga fëgg buntu jàmb xeebu bii ñu jël xol yooyu noonu boole ko ba illaa yawmi diin dootuñ tàqalikoo incha allahu li tax ñu tuddee ko ambassadeur ci wàllu nopp ay preuve yu mu wane la waaye tamit def ñëpp di gis moo tax ñu tuddee ko ambassadeur ci wàllu nopp waaye man li mën a tuddee ambassadeur dëgg la nopp yaa ci ambassadeur mais jàpp naa ni xëccoo nga gën a doon ambassadeur parce que am na ñoo xamante ni bu ñuy bu ñuy xëccooleel nit sax doon ay sëriñ dañuy ñëw ba ci yow ne la lii laa bëgg lii laa bëgg baa bokkoo ci xëccoo bi pour ñoom ñu mën a gañe ñu ngi sant yàlla xëccoo daal la may wax de wa saabixoon saabixoon ñi jiitu daal jiitu nañ xëccoo mm-hmm. yoon woowu fa la ñuy jaar baat yooyu moom la ñuy jël liggéey ci yu yéeme waaw damay wax ne nit ki lépp lu muy xëccoo te bëgg ci jot mhm. na ñëw ci jàmbu xeebu bii ñu liggéey loolu jox la ko nga jëfandikoo ko boo ko mhm. jëfandikoo nga am ci ndam waaye nag kuy xëccoo lu jëm ci wàllu nguur lu kawe waaw dañuy jël li gën a kawe ci jur yi ban jur moo gën a kawe gëlëm moo gën a kawe ci jur yi dañuy jël lañuy liggéey ñu ngi koy liggéey ci gëlëm wallahi moo xam mairie ngay xëccoo moo xam poste bu foor ngay xëccoo ci mhm. bërëb bëgg faa jiitu ñu liggéey li ñuy liggéey ci gëlëm jox la ko nga jëfandikoo ko boo ko jëfandikoo loolu noonu di nga ci jiitu di nga ci raw ñëpp dem na ba ci wàllu concours am na nag lu ñuy jëfandikoo war a fax naaw yëkkati ko màkkaanan ci bërëb xaliyen bu kawe war a fax naaw màkkaanan xaliyen am na ci loo xam ne moom la ñuy faral di def xëccoo ci wàllu examen damay faral di wax ne man ci biiru bac waaw entrée en sixième concours douane concours police ak lu mu mun a doon. Mhm. man su ma ñaan dama am benn lim bu ma ciy jël. waaw ndax lim bi doon def yëpp suñ leen jëlee at mi mhm. te loolu doxalul réew. ala fokk am ñu foor. Mhm. dem am ñu néew la ñu toog. loolu mooy performance. kon nag moo tax ñun lu jot ci concours. dafa am benn lim bu ñu jël. lim boobu suñ ko jëlee 100 pour cent lañ ciy am. alhamdulilah man ay concours ak xëccoo. Oh. Cheikh Abdoulaye cent pour cent la ciy def ñu ngi sant yàlla ci loolu mhm. boobaa nag loolu suñ ko liggéeyee jox la ko nga takk ko muy téere ci loxo ba ngay bindee mhm. xaw ma ban examen ngay perte waaye boobu du ci mbokk oh. moo tax looy xëccoo rek di ko yootu uh-huh. ñëwal ci jàmb xeeb bi dem na ba ci wàllu loterie ba ñuy xëccoo ca bitti réew uh-huh. tubaab yi di ko xëccoo muy fay ay milliards waaw jàmb xeeb bi rek moo ko mën a jàpp ku ko bëgg a jàpp uh-huh. moo xam euro million la moo xam powerball moo xam lu mën a doon mm-hmm. fëggal buntu jaam bu xeebu bii ñu jël la ngay xëccoo muy loterie bu mën a doon mm-hmm. teg ko ci sa loxo mm-hmm. ci kàttanu yàlla ak ci mbaaxu alquranul karim ndeysaan man nag li tax mu tuddee ko ambassadeur ci wàllum xëccoo xam naa ko ndax gis naa résultat yi nga xam ni am na ko ci xëccoo yi nga xam ne ñu ngi koy def bitim réew tubaab yi sax fii la ñuy ñëwee sàkku si ñaan ngir mën a dem ca loterie yooyu noonu mën cee gañe waaye Cheikh Abdoulaye Thiam dañ lay woowee marabu de Ousmane Sonko te du ñàkk ñu waxtaan ak yow ci procès bi ndax procès bi doon nañu sàkk loolu ci yow mënuñ ko woon a am procès bi jàll na waaye nag dañ ko amaan 200 millions ci 200 millions yi noonu Mame Mbaye Niang nee na du ko jox njabootam du ko jox sax kenn koo xamante ni mi ngi mi ngi koy jiite waaye da ko war a yëkkati da ko bëgg a yëkkati teg ko ci ñooñu daara yi. Mame Mbaye dañ koy wax ne ñun. waaw ñun nitu daara. waaw doyewuñ alal jooju noonu dara. ndax xam nañ fi alal ji jógee ñun. waaw ñun. fi alal ji jógee xam nañ ko doyewuñ deux cent millions yi dara ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax xam nañ liñ ñu war a jox ñu jël ak liñ ñu war jox ñu ñàkk koo jël ku ci bëggee dugal nag mhm. alal jooju lépp loo ci jël di ko réccu ah. amalu la benn njëriñ parce que alalu doomu aadama boo xam ne nii dañ koo tooñ réew mi nañ ko nammaat ñu tegaat ko ci dëgg benn buur rek moo fi am ma yàlla benn atte rek moo fi am alaysa allahu bi ahkamil hakimin benn sa attekat rek moo fi nekk mu yàlla borom bi tabaraka wa taala lépp lu fi nit atte te teguwul ci dëgg bés dina ñëwaat nga attewaat ko ci sa kanam borom bi te boobaa nag cour d'appel du am de hmm? cour d'appel fii lay am de waaye boo demee ba ci kanam borom bi ndeysaan ah, buñ attee jeex na de doomu aadama nag lépp lu mën a dugg ba mucc ci mbëggalum mbàmmeel na ca dugg waaw ndax dañu toll ci réew moo xam ne dafa soxla defaraat mhm. jikko yi mhm. ndax mënuñ ne yow da jël ba pare ngay topp nit ci wax jooju noonu Ousmane Sonko rek nekkul moom moo fi wax wax boobu waaw Birahim Seck Forum Civil dañ ko diglu Cheikh Yérim sekk waaw génn na wax ci média yi àdduna bi yëpp dégg ko mhm. moom moo ne mbir mi am na te ñun dañ jàpp ne journaliste d'investigation la war na wax mbir mu fiable rapport bi am na Yérim poste lañ ko jox mu ngi jugee ci benn membre ci gouvernement bi mhm. waay waaye rapport bi xanaa muusi sax am nañ ko waaw muusi uh-huh. yor nañ rapport bi léegi ñi génn yëpp na yor nañ lan moo tax jàppuñ leen ñu jàpp benn doomu aadama benn bu wax te bu indee mën nañ na recel de document administratif jàpp ko mhm. su indiwul ñu ne dafa def diffamation réew mi doy na waar te damay wax ne Ousmane Sonko yu mel nii bu mu ci duggati. ndax borom ko du lakk. soo amee sa njaboot am ñoo xam ne mën nañ laa waxal yow doo moromu Mame Mbaye Niang président Macky Sall mooy sa morom. kon Ousmane Sonko. Ousmane Sonko du moromu Mame Mbaye Niang. waaw président Macky Sall mooy moromam. kon nag man su may jëflante damay jëflante ak sama nawle. ndeysaan su may waxal damay wax ak sama nawle. kon nag moom buy jëflante Macky Sall lay jëflanteel. bu mu jëflanteeg Mame Mbaye am na booy yu mun a wax ak Mame Mbaye ñaa mm-hmm. jaaduwul Mame Mbaye di traîner ak soo ko ñuy dem di yéeg a ko wàcc. tam am booy yoo xam ne mun nañ ko waxal loolu. waaw. mais mbiram nag jàmm rek jàmm rek moo si am. Mm-hmm. ndax Ousmane moom garanti nañ ko ba pare. ndeysaan ñaanal nañ ko ba pare. Mm-hmm. ndax ñun damay wax ne ñun man ba ma koy xam. doonul sax député wax dëgg yàlla bi ma koy xam doonul sax député kon nag ñu ci ginnaawam di ko ñaanal yàlla te balaa ñoo am mbégte moo ñu yóbbu ko ba mu dugg ca biir pale ba ndax ñun Sénégal giñ bëgg ci jëmmam lañ ko yaakaar yaakaar dong lañ ci am ndax yaakaar moo tax sax jaam bi di jugee fii dem ba màkkatal mu karam di aji ci néegam yàlla bi jaam bi yaakaar lay dundee am nañ yaakaar ci moom projet doy nañu jikkoom doy nañu diineem doy nañu moom la jiitewoo parce que ñun lim ñu wax ba dugg ci suñ dënd yi ñun ñooñ daara mm-hmm. ba ñëpp pare ngir dimbalante ak moom mm-hmm. ñun ñoo ko xam te yemuñ ci loolu ñu ngi koy ñaanal yàlla di sonn ci mbiram ba bëccëg mm-hmm. damay wax ne mbiram dañuy coow coow coow coow coow ba sonn du mujj fenn dañuy wax a wax wax ji xam fu muy wëj wax ja ca pale ba lay mujj. mbir Ousmane. Uh-huh. da ngay wax a wax ba dugg ca biir pale ba rek <laughs> bu demee ba dugg ca pale ba nag. Uh-huh. xanaa noon yi dinañ noppalu. Sénégal daal ku ko bëgg. ndeysaan àndal ak Ousmane. parce que bëgguma nit ñi di dugg ci loo xam ne yombal xiyaam dañ koy layoog suñ borom. Hmm. moom la fi yàlla teg nañ ànd ak moom. suñu ànd moom dinañ ci gis ndam. ragal péete day xañe wërsëg. waaw cent mille Ousmane Sonko moo ma gënal deux million Macky Sall la kon nag moom la fi yàlla teg dañ ko ñaanal yàlla mbir yi daal mu ngi noonu ma koy digal daal ne ko mbir yi bu ko ci kenn déggati waaw bu duggati ci détails yu mel nii waaw na gérer politique am rek uh-huh. nit ñi bëgg nañ ko hmm. dugg na ci xolu jaam ñi ba pare 2024 waaw dugg na ci xolu jaam yi ba pare kon nag ñun focus bi xam nga lan la waaw ñu ngi jëm ci vingt 2024 bëggatuñu dem tribunal bëggatuñu yéeg bëggatuñu wàcc man bu ma amoon sañ-sañ appel boobu sax ñuy wax uh-huh. buñ ko def bu leen ko dara jaral deux cent millions du dara kenn ku nekk ci patriote yi mën naa jóg yëkkati loxoom fay ko waaw coow li jeex uh-huh. yaa ngi dégg waaw ku nekk mën na ko fay uh-huh. su ma ko fayut keneen mën na ko fay ci biir patriote yi damay wax ne jarul sax appel nañ bàyyi noonu rek dañ ko jox deux cent millions yi comme moom 200 millions ko yitteel. parce que mm. boo demee ba ne du ma ko jéggal même bu dee damay jël këram ak. ba mm. matériel yi ca kër ga sax. Mm. kon dafay mel ni kooku alal moo ko yitteel. Mm-hmm. comme alal la ko yitteel nag. yaxeeti nañ ko jox 200 millions yi ñun nag ñu dem jublu ji 2024. dëgg la buñ leen may luñ wax mukk parce que buñ demee cour d'appel mën nañoo daan lu ëpp loolu ñu ne du dem. ñu demaat cour de cassation mu joxe loolu kon nag justice moo ci des may nañu ñu mën a bokk. buñ topp ci mbir bi di ko gëstu di ko gëstu. Mm-hmm. ah parce que buñ ko gëstoo mën nañu yóbbu foo xam ne du neex. Mm-hmm. te damay faral di wax ne. senegal jamono bi dafa mel ni benn bëy boo xam ne dafa nekk ci diggante bukki till ak gaynde hmm? bëy boobu du fa am sens. bëy bu till gaynde bukki mooy attikat yi ngay gis ñii rek. Hmm. ñoo sol seeni robb ñii ñooy gaynde yi ñii ñooy bukki yi ñii hmm. ñooy till yi. jàmm bi xeebu bi Ousmane Sonko mooy béy bi. Uh-huh. béy nag ci kanam till gaynde ak bukki mënu fa jëlee ndam lu bëri. kon nag nañ topp te maytu rek. Uh-huh. suñ maytoo danañ xuus ba yegg ci pale ba. maytu du ragal. Uh-huh. yonent sallallahu alayhi ki gën ci mbindee fi. bi mu bëggee rawale diineem yàlla daf ko digal mu gàddaay dem Madina. bi mu demee Madina rawale diineem keroog bi mu amee doole bi mu egsee bunt yëpp dafa tijjee ko. fat u màkk taxaw. kon nag président. Ousmane Sonko dama koy ñaan mu moytu bu mu duggati ci yu nu mel topp lim topp rek su ko toppee jaam yu duñu am fuñ ko jaar. macha allah émission bi muy tëj waaye réew mi dañ cee seetlu li nga xamante ni moom mooy kumba am ndey kumba amul ndey ndax. gis nañ ni am na ñu génnoon menacé Ousmane Sonko ba léegi mujjul fenn ba kii di euh, Dof ndey génn na di menacé ñi ànd ak Ousmane Sonko yor jaasi ba commencé di am ñoo xamante mi ngi dal seen kaw te ba léegi gisuñu yoon def liggéeyam sëñ bi lan ngay tëjee ci loolu. waaw Dof ay waxam duñ ko bàyyi xel parce que ki ko bàyyi xel moo koy indil fitna waaw Dof Ndeye mbiram daal xam nga lan la. lu max mënul ci butéel. mënul mhm. ko ci Ousmane Sonko max. waaw lu mënul ci butéel. mënul ko ci Ousmane Sonko mënul ko ci xolu jaam ñi xol yi daal yàlla jël na ko def ci Ousmane kenn mënut a wax a wax a ba génne nit ñi dañuy dugg ci vie privée nit ki vie privée am la waaye ñun li ñu doy mooy politique am moo ñu doy teg na ko ci yoon wu sell teg na ko ci yoon wu set doomu aadama yi Sénégal seen tardement lan la dañuy attardé wu ci ay euh, personnalité nit ki tubaab yi dafay dañuy faral di wax ne les grandes personnes euh, parlent des idées. Mm -hmm. mais les petites personnes parlent parlent d'idées euh, parlent de la personnalité te l'homme mhm. mais ñi am idée borom xam-xam yi idée la ñuy gis. waaw boo bëggee réew mi jëm kanam. idée yi Ousmane Sonko indi moom ngay topp. Mhm. mais doo xool ay tëdd na fii jaar na fii jaar na fa loolu vie privée la. Mhm. te amaana yow mi koy wax sax. yaa ngi yor jikko yoo xam ne ñu ngi nëbbatu ci yow mm-hmm. te yow jikko yooyu leer na la nàññi te yu Ousmane Sonko yi mu la lëndam mm-hmm. nga topp jikko yooyu di ko gës li ñu gëstu daal ñun mooy idée bi doy nañu moom la ñu ànd ak moom ñin ñi di coow di yuuxu ba ca biir pale ba alhamdulilahi rabbil alamin ngeen amoon ko muy Cheikh Abdoulaye Thiam borom kurus gi waaye tamit di ambassadeur ci wàllum nopp ndax dëgg yàlla bëri na ay résultat yoo xamante ni am na ko moom Cheikh Abdoulaye Thiam ci wàllum nopp ci wàllum kaaraange ci wàllum musal nit ci wàllu bu ne bëri na ci ay résultat tey nag ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci xam-xam waxtaanoon nañoo ak moom tamit ci actualité gis ngeen ni mu ni mu ci ni mu ci mel marabu Ousmane Sonko lañ koy dàqantale boobu léegi te yàgg na mu xam ne rek ci dëgg la teg tànkam te tamit ci dëgg rek la nekk moom Cheikh a Thiam ñu ñaan na ko yàlla rek mu ngi noonu mbokki internet Allô ngi leen di jaajëfal di leen jox di leen ëllëg